subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax ak fu ngeen mën a ne ci àdduna bi di leen nuyoo fii fii jumaa Cheikh al Xadim ji rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel suñu jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen di xayaat Cheikh al Xadim te mooy dund sëriñ bu mag bi ñu di ci ànd ak daayira Muqaddamatul Xidma waaye ngeen di ko mën a e, toppee ci e, GMT TV te mooy télé bi nga xam ne mooy télé bi njëkk boo xam ne jumaay Tuubaa ji moo ko moomal boppam e, ni ñu ko baax baaxoo defee nag xam ngeen ne bi ñuy tàggoo ci jataay bi weesu ñu ngi yamoon ci doon jàngat yenn ci jikko yi soxna jaara mi nga xam ne e, mooy woy juru bu mag bi te ñu indi woon lenn ci ay jikkoom taxawoon ci ak ragal yàlla am e, daaneeloon suñuy kàddu ci fi nga xam ne fi la Cheikh Ahmadul doon leerale taxawaay bu am solo bi nga xam ne soxna jaara da ko taxawe woon ci diggam ak boroomam ci wàllu jaamu boroomam waaye taxawe ko itam ci diggam ak ki ko suñu borom booleeloon muy acheikhul walid wala acheikhul imam di suñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye itam euh, mu leeral taxawaay bi nga xam ne taxawe woon na ko ci digganteem ak njabootam ci wàllu yar bu rafet ndax loolu masuuli yàlla boo xam ne defe naa ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel euh, képp kuy wayjur rawatina wayjur yu jigéen yi war nañoo jéem a roy soxna jaara ci nii ko Cheikh Mouhamadul Bachir jàngalee ci ne moom maanaam murabbiya la woon mooy ku daan yar la waaye daa daawud yare nag ci anam gu ne yare ci anam gi nga xam ne mooy anam gi diine santaane te mooy anam gi alquran tànn ah, anam gi nga xam ne ñu baax ñu ko jiitu woon ci ay maamam ci ay ci ay ci ay sëriñam ñooña eh, noona lañ daan yare te mooy yar ci diine yar ci laab yar ci jikko ju rafet <coughs> jikko ju rafet joojee nag waxoon nañ ne dafa am ñaari jikko yu am solo yoo xam ne da caa bokk te yooye sax bokk ci jikko jikkoy taqwa ndax euh, ragal yàlla waxoon waxoon naa ne dafa day day ak garab goo xam ne dafa bari yu ci aju euh, salaax ak iffa mooy ak yiw ak yiw ak fegu dafa bokk ci jikko yi soxna jaar ràññi ko te mu bokk ci màndargay ragal yàlla waxoon naa ne suñu borom subhaanahu wa taala tagg na ci euh, soxna Mariama waaye tagg na ci buñ delloo ci alquran danañ gis ne Eh, jikko yu tedd yooyu di salaax ak ifa te mbokk ci mbokk ci jikko yu soxna si boroom da cee tagg ay jigéen yu baax waxoon naa ci ku mel ne sayyidatna Maryama mi nga xam ne mooy wayjuru sayyidina Isa alayhim assalaam waaye am na beneen aaya boo xam ne sax da boole ñoom ñëpp mbooleem ñu baax ñëpp maanaam soxna yu baax yëpp tagg leen ci jikko jooju mooy fi nga xam ne fa saalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xaybi bi ma xafidallah soxna yu baax yi ñu nangoo toroxlul seen borom lañ ñu nangoo jaamu seen borom lañ waaye ñu nangoo sàmm xëy bu lu faddu lañ maanaam dañuy am euh, dañuy dañuy dañuy doon ñu sàmm ñoo xam ne dañuy mën a wattu secret di mën a wattu itam nag euh, li ñu daan li li li nga xam ne moom lañ wax bàmmeelu biir daal dañ koy am te loolu lépp nag bokk ci li nga xam ne suñu borom moo leen ciy dimbale Euh, bu dee jëmmi salaax ci boppam na nga xam ne mooy tax ñu naan kii saalixa la jigéen ji saalixa la comme ni ko soxna jaara doone baatub salaax borom xam-xam yi dañuy wax ne mooy safaanub fasaad mooy lu lu baaxut lu baax safaanam mooy lu baaxut moo tax boo demee ci alquran léeg-léeg suñ borom euh, dana indi fasaad dana indi sayi sax léeg-léeg léeg-léeg te mu andi safaanam muy sayi lu mel ne ci misaal fi mu waxee ne xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'a am na ñoo xam ne dañuy jaxase jëf ju baax ak jeneen jëf ju baaxut gis nga foofu sayyi'an la def safaanam mu nekk safaanub saalix wala tufsidu fi l ardi ba'da islaaxiha wala tufsidu al ifsaad foofu mooy yàq di yàq ci kaw suuf safaanam mooy islaax kon gis nga salaax mën na doon safaanub fasaad comme ni nga xamee ne islaax safaanam mën na doon ifsad waaye nag <clears throat> hmm. salaax gi moom gi nga xam ne moom lañ namm fii mooy nit ki doon saalix fi nafsihi maanaam doon ku ku baax ci ku njëkk a baaxal boppam maanaam defar boppam wala fexe ba boppam jag ba noppi yiw yiw ci boppam nga xam ne boo ko xoolee ci aw ci aw colinam xool ko ci aw doxinam xool ko ci waxinam daan ne ah kii di ku yiw la gis nga soxna jaara fi ne xam ku ne xam ne ne amul foto léeg-léeg ñu ne foto soxna jaara waaye li li li wér mooy soxna jaara amul foto waaye buñ koy nataal sax ci ay dessin ci ay dessin da ngay gis dañ koy nataale mu doon jigéen ju muuroo muuru muuru ba nga xam ne eh, na muy yiwee ci kaw sax dangay ngay defe ne kii jigéen ju am juróom fukki at la wala juróom benn fukki at ci koo xam ne lim dundu waxoon nañ at mi mu gën a jamono eh, te mooy lim lim dund eh, daanaka ëpput fanweeri at ak ñett ndax euh, mille mille huit cent trente trois lañ waxoon te mi ngi génn àddina ci li li gën a siiw mille huit cent soixante six kon soo ko seetee euh, fanweeri at ak ñett la moo tax euh, moom kon dafa dafa dafa fexe ba boppam baax dafa fexe ba jëmmam baax fexe ba laabal boppam fexe ba setal boppam comme ni ko xakim bi waxe woon ne ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa ida intahat anhu fa anta xakimu fa hunaaka yuqbalu in waadta wa yuqtada bir rayi minka wa yanfau taalimu dafa ne soo bëggee koo koo waar mu waaru kooy jàngal mu xam kooy yar mu yaru da ngay fexe ba njëkk a waar sa bopp da ngay fexe ba njëkk a defar sa bopp da ngay fexe ba njëkka a jagal sa bopp nee na boo xasee jagal sa bopp rek ba noppi ba dox sa digganteeg euh, bànneex sa maanaam sa bànneexu bakkan ak topp sa bakkan mu ne su boobaa boo jàngalee njàngale ma dana leer soo waaree waaraate ba dana leer te ka lay diglu it dana la roy te dana jariñu ci jàngale ga loolu moom soxna jaara noonu la defoon euh, beneen bi ci des it salaax te mooy ak yiw doon euh, jikko joo xam ne mën nañu wax ne moo boole mboolem jikko yu baax yëpp euh, waaye dafa am nag ay daraja yoo xam ne yu yu yu kawe la yoo xam ne daanaka mën naa wax ne amul fu maanaam dégg nga fa lay moo tax yonent yi seen bopp sax wax naa ko ci jotaay bi jàll wax ne dañ daan ñaan yàlla tàllal seen loxo yàlla di ko ñaan mu boole leen ci gaayam yu baax yi xoolal kii di sayyiduna Suleymaan lu mu wax wa nii bi rahmatika a ibadika saalihin suñ borom ba muy tagg yonent yi itam dafa tudd ay yonent ne diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam ci gaay yu baax yi lañ bokk mooy Zakariya ak Yahya ak Isa ak Ilyas wax ne kullu min as-saalihin Euh, moo tax salaax googu bu ci nit ki saxee jaamu bi yàlla bi bu ci saxee ci baax ci yiw ci fexe ba defar boppam fexe ba boppam jag day dem ba da koy yóbbu ci daraja ju kawe ci salaax te mooy daraja istiqaama al istiqaama ala sunna te mooy doon ku ku ne temm ku taxaw temm ju xocc ci yoonu sunna comme ni ko Cheikhul Khadim jàngalee ci masaar bi ne wa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaaxi wal karaama ñoom boroom xam-xam yi ak gaa yu baax yi wax nañ ne istiqaama kat mooy dayob mbaax mooy dayob itam tedd nga maanaam karaama eh, kon salaax lu am solo la loo xam ne lu mat a la ndax dafa am na it ay jeexiit yoo xam ne da koy bàyyi ci ci ci ci ki ko melowoo ci ki ko jikkowoo ci moom la koy njëkk bàyyi maanaam ci moom la ci moom lay njëkk a feeñ jeexit yooyu jeexit yu baax yu am yu am njëriñ su ko defee jeexit yooyu da dul yem ci moom rek waaye day royaat wala day rogalaat ba àgg ci société bi wala ci mbooloo mi muy dund te bokk na ci jikko te bokk na ci jeexit yooyu nga xam ne jeexit yu am solo la yoo xam ne salaax dana ko def ci nit ki mooy dana tax nit ki am dund gu teey dund gu teey goo xam ne day ànd ak xel mu dal xel mu dal ànd ak tranquillité maanaam intérieur nit ki am biiram dal du am jax-jaxi lu koy tiital mbaa lu koy jaaxal te loolu mooy li aaya li aaya li aaya ba jàng la wax ne man amila saalihan min dakarin aw unsiya wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahumu ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun te gis nga fii góor ak jigéen la wax képp koo xam ne yaa ngi jëf jëf ju baax kon mooy yaa ngi sàmm yaa ngi sàkkul sa bopp ak ak mbaax ak yiw moo xam ngay góor wala ngay jigéen te fekk bi nga ko def yaa ngi yaa ngi doon ku gëm yàlla suñu borom nee na ci àddina laa koy njëkk a mosale meññetum salaax meññetum baax meññetum yiw te mooy danaa ko dundal dund gu teey te bu ëllëgee bu ñëwee ma fay ko la gën a rafet ci mu doon jëf waaye salaax it dana tax nit ki mucc ci alkande dana tax nit nit ki boroom mucc ci alkande àddina ak alkande ëllëg moo tax suñu borom wax ne wa maa kaana rabbuka muhlika al qura wala mu wa maa kaana rabbuka li yuhlika al qura bi dulmin wa ahluha muslihun gis nga yàlla du du du alak ab dëkk doonte eh, ñooña am na ci ñuy tooñ sax fii waa dëkk ba am na ci ñu ëpp ci ñoom ñu ngay nekk ñu baax ñuy baaxal fii nag muslixoon la wax mooy kon ñoom dañuy saalixoon ba noppi doon muslixoon mooy dañoo baax ba noppi di baaxal soxna jaara saalixa la woon waaye muslixa la itam bokk na ci meññetum jeexiiti salaax itam te alquran tudd ko mooy eh, ñiy mujje suuf si ëllëg ñi yàlla doon loo suuf si ëllëg di leen may pexe ak xam-xam ak kattanuk ñuy mën a exploiter li ci suuf di man koo jariñoo mooy ñu baax ñi wa katabna fi zaburi min baadi dikri anna al arda yarisuha ibadiya alsaalihun sama sama suuf si euh, ñi koy doon ëllëg di ko jariñoo di fi mujj mujj gu rafet ñooy sama jaam yi bopp yu baax yi waaye itam salaax dana jox boroom féeteeg yàlla féeteeg yàlla li ñu tuddi wilaayatullah yàlla Euh, tàgg na ñi nga xam ne dañoo dañuy baax wax ne ñooñu moo leen di méngoo maanaam ñoo xam ne yàlla mooy méngoo seeni mbir ci lépp luñ bëgg mu defal leen ko lépp lu ñu ragal mu daqal leen ko mooy li mu wax ne inna waliyi allahu alladi nazzala alkitab wa huwa yatawalla saalihin waaye yemul foofu de nit ki bu bu góorgóorloo ci salaax ji koy dana dem ba suñ borom sax daf koy sàmmal boppam sàmmal ko aw askanam sàmmal ko ngir téem li ñuy wax maanaam inaaya ilaahiya Eh, salaax da koy maye te loolu feeñ na ci soxna si soxna jaara aw doxinam ci ni ko yàlla def barkeelal ko ak dundam koo xam ne dundoo lu ëpp lu lu lu ëpp fanweeri ak ñett amoo ñeent fukki at te gis nga waxtu nekk ñuy tudd aw turam ba wutal ko bis sax di ko fàttali ko tey boo demee poroxante yi gis fa jeexit ju màgg juy wane eh, ab liggéeyam waaye itam yàlla sàmmal ko njabootam itam nag ba gis nañ a eh, Cheikhul Khadim buñ demee ba ci biir waxtaan wi gis nañ mu toll woon ci ay tolluwaay yoo xam ne tolluwaay yu métti la yu xatoon la yoo xam ne suñ boroom ba mu koy ba mu koy dimbali daf koo jaarale ci won ko woy juróom wu jigéen woowu nga xam ne fekk na ko ci néegum ndakaaru bi di ko dëfal di ko ñaax fekk na ko ca euh, maanaam bënn ga woon ca euh, ca géej ga nga xam ne sax moo ko ca génne di ko Cheikh Blad nettalee euh, ne ko demal àggale gi sab liggéey kon sàmm googu suñu borom di sàmm njaboot bokk na ci li koy maye mooy baaxu maam wala baaxuk way jur mooy li mu wax ci suratul kahfi ba muy nettali histoire xudar ak euh, ak Seydina Moussa wala boog Seydina Moussa waayam ju baax jooje mën nay xudar mën nay keneen dafa wax ne wa kaana abuhuma saaliha parce que booba lay nettali miir boobu nga xam ne dafa naroon a daanu te Seydina ka ka àndoon Seydina Moussa yëkkati miir ba euh, te fekk am na euh, maanaam kanz benn loo xam ne ndàmm wala boog trésor bu nekkoon ci ron miir ba te eh, am ku ko fa bàyyi loon ak njabootam te ko te te waaju baax jooju bëggul loola laatu suñu borom jox ko ndigal mu yëkkati waat mbir boobe eh, sàmm googu yàlla sàmm ñooñu ñaari jirim yooyu sàmmal leen seen koom-koom boobu eh, bokk na ci la ko bi ko suñu borom di taalil di laal ginnaaw coobareem ak dogalam dafa xam ne wa kaana abuhuma saaliha te abuhuma jooju ku mel ibnu abbas day wax ne tekkiwul ne mooy seen baay bi leen jur sax mën naa doon sax seen ñaar wala seen ñetteelu maam waaye bokk na ci li nga xam ne salaax da koy may itam mooy al itminaan mooy nit ki am ak dal ba du ragal dara du tiit dara ba bu su fi jóge sax di dem di wuy ji sax day am xel mu dal ci njabootam day am xel mu dal ginnaawam fa man amana wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun boo ko doon lim yu bari la bokk na ci dana taxit yàlla jéggal boroom nit ku baax nit ku yiw ku mel ne soxna jaara eh, bokk na ci li li li ko salaax gi di mooy da koy xëccal njëggalu yàlla ak yërmaande yàlla rawatina nag fekkee salaax ga dafa ànd ak ragal yàlla te ñaari ñooy ànd ndax waxoon naa ne ci màndargay ragal yàlla ci la bokk wa in tuslixu wa tattaqu fa inna allaha kaana gafuran rahima su ngeen baaxee tey baaxal tey moytu seen boroom tey jëfee ndigalam di bàyyi ay tereem ah na ngeen xam ne kat yàlla ku mën a jéggal la ku mën a yërëme la kon yooyu yëpp day wane rek meññetum salaax ak ak a afifa bokk na ki nag lii firndeel xëy na foofu la ñuy jeexale incha allahu ci tomb bi mooy liy firndeel nag baaxuk soxna jaara akuk fegoom te bu waxee fegu waxoon naa ne fegu ay xeet la fegu anil maxaarim am na te buñ ko waxee mooy nit ki maanaam sàmm sàmm awraam ba du ci mooy yàlla sàmm aw làmmiñam ba du ci wax lu dul noona ba du ci xuus ci deri nit ñi kooku xeetu fegu la am na beneen fegu boo xam ne iffatun an il maasim ni mu ni mu amee an il maxaarim boo xam ne mooy fegu wëlis yi waral ay bakkaar te mooy fegu ba doo jëf doo tooñ tooñaange goo xam ne tooñaange gu fës lay doon goo xam ne day jéggi dayoo ba ñëpp tekki seen bët waaye itam fexe ba sa maanaam sa bakkan bii nga di ko jàjji ba duy nëbbutu di def lu naqar yàlla wala muy nëbbutu di war boroomam ci wéetaay yooyu ci xeetu fegu la bokk te mboolem ñaari xeetu fegu yépp soxna jaaratullahi bu so da ko melowoo woon ba doon ci misaal mu kawe ci jigéen ju baax yoo xam ne ni ko Cheikh Amadou Bachir rek noonu la demee ndax moom xelam mësta xalaat jëf lu naqar yàlla lii jigéen ñu bari baaxoo itam te mooy di jëw rawatina bu nekkee ca yoonu marché wa wala bu nekkee ca wolukaay ba wala bu nekkee ca ca rootukaay ba ca bindu teen ba soxna jaara moom wax nañ ne bu ma masaan di togg sax ca waañ wa wala mu ne ca walu ba wala mu ne ca rootukaay ba sax ma ngay tari dalailul xayraati lil jazuli nga xam ne ba bëggul sax waxuma la di wax lu yoonam nekkut wala muy jëw mbokkam wala muy sikkal kenn wala mu yàqu deru kenn waaye sax far ngir la muy def barkeel ngir yàlla tàbbal ci barke mu ànd ak leer la muy togg ànd ànd ak barke ànd ak leer la muy root ànd ak barke ànd ak leer sax day di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax nañ ne euh, dégg nga dalaa idul xiraat da ko teeloon a mokkal lool teel na ko waxtu lool ba da ko daan tari bu daan rooti ak bu daan wol ak bu daan togg euh, kooku nag noon rek la mën a mel ndax koo xam ne da nekk jaaratullah ndax loolu da da li gën a siiw mooy ne maqaama la moo xam ne da koo dab te bu ñëwee ci xasida gi nga xam ne moom la ko euh, sëñ Massamba Mariam wooyi du ñàkk ñëw ci xëy na ci beneen jotaay incha allahu dana dana firndeel loola te loolu la ko may kon mooy ragal yàlla gu wóor salaax gu wóor te mooy baax gu woor waaye afa gu wóor itam yàlla it war koo xaroo nag war koo waajare nag mu nekk ummu xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, cheikhul xadim mi nga xam ne moo war a ñëw ngir xet li mbindee fii ci zulumaatul jahl wal xabaawa ci lëndëm lëndëmi réer ak mbewte ak ak càggante ak ndof yóbbu leen ci nuurul almi wal adala ci leeru xam-xam ak leeru maandu moom mi nga xam ne moo ne lil Mustafa nawaytu maa yu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu te loolu kon euh, yàlla suñu borom subhaanahu wa taala da koo koo da ko koo waajalale wayjur yu baax te te bokk na ci wayjur yu baax yooyu soxna su tedd su baax si nga xam ne euh, moom la ñu waxtaane te ku ne xam ne ne lii mu doon jànkonteel bi mu koy jànkonteel ci contexte bu métti la ko doon jànkonteel ndax ko gis euh, tuxu tuxu yi ñu doon tuxu koo xam ne wax nañ la ci maanaam jotaay bi jàll mi ngi ganee jamono jolof dégg nga ca musóobe ci jolof daanaka yaroo diggante bawal ak xëy na kajoor ba ba ni ñu tuxoo dem saalum xam ne sax daanaka saalum la dégg nga mujje ba tey jii am na sa ci kenn ki sama sama nijaay ku ma doon tooñ benn bis xam naa di kale musóobe yi ba ma ba ba ma ne ko waa léegi soxna jaara nag léegi kon maanaam ni nga maa soxna jaara kat bokkut ak yéen dara ndax soxna jaara moom ab saalum saalum la mu xam naa da ko wax rek min baabil mizaax wala mu maazaha ci kaf waaye loola day war a nekk rek koo xam ne yaa ngi ci saanoo jolof mujje Poroxaan mujje mujje mujj nekk Saalum rawatina nga doon dund ci jamono joo xam ne jamono jihaad la jamono jafe-jafe la waaye teewul tey boo demee xuru Mbàkke gee fekk fa ay jeex itam ñu ñu naan la fii la nekkoon fii la ab néegam nekkoon teen bee la daan roote euh, ba ci sàkket yooyu ñuy nettali ci moom yépp euh, ci bare bari foofu la xewe ndax euh, niñ ko xamee rek Cheikhul Khadim bi mu feeñee jamono Mbàkke Bawol itam waxoon nañ ko ci bañ ca tollee bi mu tolloo ci ñett ñeenti weer ci la dégg nga njaboot gi tuxoo Mbàkke Bawal ñëw euh, sañ ci xuru Mbàkke incha allah xuru Mbàkke sax du ñàkk jataayu boppam ndax euh, ndax foofa dem nañ fa te incha am na ay gëstu yuñ fa def du ñàkk moom itam jataayu boppam boo xam ne ndax dina lëkkaloog euh, nii bi nga xamee ne sëriñ bi mi ngi waaj waajtaayam war a dem soobu cim njàngam ni mu nekke woon ci biir kër ñaari way juróom yu tedd yu baax yooyu nga xam ne mooy diggante soxna jaaratullahi mariama mii ñu doon waxtaane Euh, ki nga xam ne mooy kilifam gu baax ka di Serigne Mbacke Mor Anta Sali ko defee loolu rek kon mooy tënk bi ñu leen indiloon tey incha allahu taala euh, ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu xayaat Cheikhul Khadim ngeen di ci baaxoo ànd ak euh, GMT TV di télévision Grande Mosquée de Touba kaddu gi di bàyyi ko fii fi jumaay Touba ji lëkkaloo ci ak daayiratu muqaddamatul xidma ñu leen di jox kon incha allahu daje ak jàmm ci ñaar fukki fan juróom ci weer wii di ñëw. ñaan yàlla may ñu fekk ak tal eh, wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد